13h ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës sañu na mu ko jukki dina bokk ci ndaje wi nga xam ne waa ñoo lànk daal nañ koy euh, joxe ca place bu l'Obélisque xam ngeen nag ajjuma wi lee nga xam ne moom la ñu génn dañ leen ko koo lànkaloon ajjuma yi itam euh, naka noonu ñoom ci seen bopp li ñu xam ne moom moo di kenn du leen war mën a tere euh, dox ci li nga xam ne nag moom moo di mbedd yi wax ci dundu gu seer yi jamono yi may ak yéen way takk deere ñu ngi ca place bu l'Obélisque daañu wax ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew doomi aadama moom moo toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a dëddu uh, fukk ci ay cas grave lañu am ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram ñaar fukk ak juróom-benn uh, ci ay cas uh, positif mu mel ni nag dakkal law lawtee fukk jàngoroy coronavirus lu toll ci ñetti million ci ay masque daañ ko yóbbu ca dëkku selwa di Touba Mbacké ngi rek daal di dakkal lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci Lamine Bara Gaye xam ngeen ne moom mooy directeur bu SNEIPS daañ leen degtal ay kàddoom ci les jotaayu xibaar itam daañu waxtaanee lu ñeel wàllu caada bi la yoon nag dañuy nga xam ne nag moom moo di piano ñenn ci ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci wàll wi suñu ay ndaw dem nañ leen seeti ku ci mel ni Souleymane Beng ak itam Abdoulaye Dia ñu dëkkee ca HLM 5 daañu leen digtal aw dossier buñ ci noppee wax itam ci lu ñeel wàllu tàggat yaram afro basket ci wàllu jigéen ñi xam ngeen ne réew bu euh, Sénégal nag ñu ngay waajal bu baax a baax rawatina ñi nga xam ne euh, ñoom ñoo du staff bi ak itam gaynde yu jigéen ñi xam ngeen ne daañu daje ak itam réew bu euh, Guinée seen bëgg leen la daal di jël raw gàddu gi indi ko ci réew bu Sénégal ci la jotaay dañu leen digtal ay kàddu Umu Xayri saar ak itam Mor Bassignon wi nga xam ne moom moo ñu fa teewal ci la jamono buñ ci noppee toftal ci li yéen kaay yi xëyee ki tey léegi léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doore ko nañu leen ko euh, junje woon waa ñoo lànk nag xam ngeen ne ajuma wi li ñu génn dañu rek euh, xamaloon ne daañu amal aw mars ginnaaw bi ñu leen ko lànkalee euh, préfet bu ndakaaru daje wi tey la ñu ko waat ca place bu l'obélisque xam ngeen ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di way takk der yaa ñu nga fees dell ci woowule place waa ñoo lànk ñu fàttali leen ci leen ci loo xamante nii moom moo tax ñu bëgg wàcc ci mbedd mi daal di addu ci dund gu seer yi nga xam ne nag jamono yi askan wi di euh, dund ci yile jamono du ñàkk daañ ci ñëwaat euh, ci suñu yeneen jotaayu euh, xibaar ci li nga xam ne nag moom moo ruuse ci wowle doxu ñaxtu naam day am wala du am lu tëw taxam jarta yàkkamti daañ leen ko dégtal ci suñu yeneen jotaayu xibaar daañu wax ba tey ci li nga xam ne moom moo di dund gi ca diwaan bu Touba jàpp leen ne fileeg ñuy amal màggal gi ñu yëngu ci wàll wi daañu def kéem kàttan ba kenn du nemmeeku lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci directeur Diallo àdduna ci ay kàddu dénk suñu ay ndaw Pape Balla Gaye Talla Samb suñu tànk tànk jàmm rek la mooy dañoo jot ndigal ci suñu kilifa mooy madame le ministre du commerce et des petites et moyennes euh, pour ñu ñëw xool li nga xam ne moom moo fi nekk ci mbirum approvisionnement marché tubaa loolu nag ndigal boobu mu ngi sokkee ko ci réunion bi nga xam ne moom la ñuy def altine bi passé xam ne dañoo woo waa yi ñu nekk tubaa ñu ñëw à Dakar ak yeneen ñi nga xam ne ñooy commerçant yi importé ak ñiy euh, defar euh, produit ci biir Sénégal ku nekk wax li nga xam ne moom mooy sa problème ak li nga xam ne moom la ñu yaakaar ni loolu lañu ñu war a def pour que mu dox. ci ngir mbir loolu nag bu mu paree la soxna si madame la ministre joxe ndigal léegi direction du commerce intérieur ak service régional du commerce de Diourbel ak suba bu nekk dañoo war def li ñuy wax relevé de stock. mais aussi dañu war a xool tamit lu nga xam ne moom mooy besoin commerçant yi nga xam ne ñoo nekk Touba pour que bu fekkente ni am nañu ay commande te commande yi xam nañu fu mu nekk ñu lijjanti ko xam kooku ñu commandé lu mu nan la ci taxawee. moo tax léegi service régional chaque matin day def relevé de stock xam commerçant Touba bi lu mu soxla ci ceeb si diwlin ak si suukar mu wax ko directeur am directeur bi waxtaan ak ki nga xam ne moom moo mooy fournisseur ba fournisseur bi nag moom tamit mu xam ni dafa war a loolu. te bu ñu defee système boobu bu ñu ko waxtaanee altine ba ba léegi ñun dem ñëw nañu tey pour xool ndax mu ngi dox te ci wax ci kaddu commerçant yi nga xam ne moom ñoom la ñu seet gis nañu ni système bi mu ngi dox. Covid 19 ci mim réew jàppale ne ni ki démb benn doomu aadama moom moo toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jotu dëddu fukk ci ay cas grave lañu am ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram ca kër docteur ñaar fukk ak juróom-benn ci ay kaa positif di doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo laale ci euh, Covid 19 junni ak juróom-ñeent téeméer ak fukk ak ñaar ci ay test yoo xamante nii nag def nañu ko jàppaleen ba tey lu toll ci ñaar fukk ak ñett ci ay cas communautaire ay doomu la yoo xamante ni am nañu mbas mi xamuñu fan la ñu ko jëlee ñett ci ay cas contact mu di jege ñaale junni ak juróom-ñi téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci euh, waaye doomi aadama nag ñoom ñoo génn àddina booba boobaak léegi nga xam ne coronavirus mi ngi fii ci euh, réew mi jàpp ne ngir daal di dakkal fukk virus bi lu toll ci ñetti million ci ay masque daañ ko yóbbu ca dëkk bu sell wa di tubaa Mbacké xam ngeen ne màggal gi euh, teru na daanaka nag bu ñu sukkandikoo euh, ci ki nga xam ne moom mooy directeur bu SNEPS moom euh, Lamine Bara Gaye li mu xamle moom moo di daañu def seen kéem kàttan ba benn doomi aadama du jële jàngoro ji fa nga xam ne moom moo di ca Touba Mbacké ñu teewlu ay doom ci micro Pape Fara Gningue bi nag di lëmbee yéen ñi nga xam ne yéen a wàll gi lan ngeen di wax ñi fay waaw màggal gi moom ñi ngi ñaan euh, comme ni ñu ko defee woon daaw rek euh, suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr jox nañu instruction déjà talaata moom moo jiite woon délégation bi ñu dem Touba visiter nañu déjà dispositif bi ak naka la ñu war a doxee ñun nag ci suñu service muy seen éducation ak dana ñu yóbbu lépp li nga xam ne war nañ ko yóbbu ci ay masque ak ay produits d'hygiène yoo xam ne bu ñu mbokk taalib yi ñëwee ñu mën ko fekk sur place. masque yi moom ba àgg 3 en tout cas problème masque moom du am mu ñàkk kii tamit du am direction de la prévention jël nañ disposition yëpp pour que képp ku ñëw Touba nga bëgg a ñàkku nga jëloon AstraZeneca première dose boo demee tubaa da nga mën a jël sa deuxième dose soo soxlaa Johnson and Johnson tamit boo demee ci post de santé Touba yi danañu la mën a ñàkk loolu tamit ñu ngi ciy dalal xelu nit ñëpp. yemee ak man nawet bi ñu ngi liggéey également ak service di d'hygiène nga xam ne ñoom déjà bi ministre demee dem na visiter seen dispositif installé nañ seen machine yëpp ci fan yi di ñëw dañuy fekk weekend bi la ñuy commencer pomper Touba pour que wàññi ndox mi mais également rey yooyu. ñu àddu ci lu ñeel làngu ko politique bi fii ci réew bu euh, Sénégal démocrate réformateur yu LDR yeesal amawaloon nañu ab ndaje fa nga xam ne euh, moom moo di ca Tambacounda la ko wund bokk na ci waxtaane euh, lu ñeel làngu ko politique bi ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ñu ngi koy jànkonteel rawatina ñi nga xam ne nag ñoom ñoo bootu ci Benno Bokk Yaakaar ba tax itam njiit la di Modou Diagne Fada li mu xam xamle moom moo di jamono yi du jamono yi xeex mbaa xulloo wala bokk di xam ne euh, moom moo di euh, liggéey bi ginnaaw bi mu àddoo Moussa Omar Gueye Amadou Diedhiou la dénk ay kàddoom ñu teewlu. bàyyi xiroo bi bàyyi ŋaayo bi bàyyi xëccante bi oui ku nekk mën am ambition parce que Benno Bokk Yaakaar dafa bari ay personnalité bari ay parti politique bari ay mouvement ah bari euh, nit ñu nga xam ne mën nañoo yore te bëgg nañoo yore waaye nag encore une fois bu président Macky Sall waxee ne commune bi diw la. commune bi diw la commune bi diw la rikki waaye ku mu jëlul yi tamit xamal ne jëlul la nga dem jàppale keneen ki ndax bu la jëlul ci lii mën na la jël gouvernement mën na la jël PCA mën na la jël o conseil des collectivités territoriales mën na la jël comme membre conseil économique social environnemental mën na la jël comme leneen ak leneen ak leneen kon nag unité mooy tax ñu daan suñu gars yi parce que suñu gars yi jàkkaaru ñun moom budul wax ak réseaux sociaux teewuñu fenn ci biir ci biir Sénégal benn bokk yaakaar raw ci communes yi loolu yombu na waaye liñ leen dul may mooy moonte bu ñu boole woon de raw leen moonte bu ñu boole woon de raw leen loolu lañ leen dul may moo tax ñu ne nañu am partout des majorités absolues la daloon euh, benn bokk yaakaar ci atum 2014 fa nga xam ne nag moom moo di ca njaareem lu ni mel la ñu koy euh, moytul ba tax itam euh, mouvement ànd suqali njaareem itam am na yenn ci ay kàddu yu mu yëkkati dëgmal ko ci ki nga xam ne moom moo di Sayer Diop di rek lu ñeel langue politique bi rawatina jongante yi nga xam ne nag ñu ngi koy amal ci gox goxaat yi nag di ko waajal bu baax a baax Babacar Diouf Ndongo Ndiaye ci aw tënk. jàngat li nu def ci élection locale yu 2014 yi nga xam ne dañ ko pertoon ci njaareem tax na ne du nu jaaraat teg seen tànk fan ko tegoon ci élection yi nga xam ne ñoom la ñuy dëgmal ci atum 2022. yàlla dogalee élection 2014 yi. am gis ngeen ne APR ak coalition danoo amoon problème en 2014 looloo tax ñu gañe leen sa la ko waral lépp mooy ñàkk déggoo di xiiroo di ñaayoo ba tax opposition bi gañe leen Sémou Ngom ak ñi mu àndal tànn ki nit ki nga xamante ni moom lañ yaakaar ne lépp li waa jur Diourbel bëgg pour ki leen di jiite mel mu ngi daje ci moom ci élection locale yi nga xamante ni ñu ngi koy jëgmal ci atum 2022. la nga xam ne moom moo ñu war moom mooy war a nekk benn ci nekk benn boobu nag ñu gis ne opposition bi gagné élection yi passé Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo jël deuxième sa coalition la sa opposition bi gagné coalition la mais gis nañ ne Sayer Diop même bu demul coalition moom dong la sa jël troisième kon kooku président war na ko may xel moo tax ñu demandé que président na def at na a may xel bu baax le leader l'incontestable l'incontestable Sayer Diop ndax yeneen mouvement ak tendance politique yi nekk ci benn bokk yaakaar dinañ leen topp ci loolu dara la leeragu ci ñu àddu ci euh, leneen mu di élu territoire yooyu nag jamono yi li ñu bëgg moom moo di lu ñeel wàllu TVA yi nag daal di jëm lu toll euh, ci 3 virgule 5 euh, pour cent bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji nga xam ne moom lañu dénk wàllu collectivité territoriale di xam ne rek ne yooyu les fonds ci daal di nay toll ci fukk ak juróom-benn ci ay milliards ci atum 2012 daal di jëm ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ci atum 2021 ginnaaw aw ndaje boo xamante ni ñu ngi ko doon amal ca diwaan bu Saly Italie Abdourahmane Diallo Mamadou Gueye. ñi yor gox-goxaan yi lii di fonds de dotation yi doon na mbir mi nga xam ne lu leen soxal la li ñu bëgg mooy TVA 3,5 pour cent bi ñu war ko mën a yokk ngir loolu nag faw ñu coppar ñi anam gi ñuy joxe fonds de dotation yi. fonds de dotation la décentralisation di loo xam ne. jàpp nañ ne war nañ ko xoolaat. wax naa sànq ne 72 ba léegi 49 ans la. dafa yàgg war nañ ko dépoussiérer xool nag dal na ci mën a jàpp loo xam ne war nañ ko mën a yokkaat. benn critère de population yi jàpp nañ lu am solo la ndax dëkk yi yemuñu deuxième critère bi nga xam ne war nañ ko mën a xoolaat mooy lu le seuil de pauvreté le seuil de dépendance dépendance mooy école yi dépendre si yow muy hôpital di structure de jeunesse ndax loolu day mandargal compétence transférée yi. mu doon bébét bi nga xam ni kilifa yi bàyyi nañ ci xel ñoom sax ñuy xamle ni fonds de dotation yi ci atum 2012 16 milliards la woon tey 2021 ñaar fukk ak juróom-ñaari milliards la ci sunu koppar. fonds d'équipement yi 2012 fukki milliards ak ñaar ak genn la wàll la. fonds d'équipement des collectivités territoriales 2021 fanweeri milliards ak ñett sans compter contribution économique locale bi mu indi pour plus d'équité sans compter programme yu mag yi nga xam ni indi na ko ci wàllu PACASEN ak ci wàllu yeneen xeetu jàppale collectivité territoriale yi. liggéey réforme yi nag waa agence de développement municipal ñoo ci ne ñuy fàttali fonds d'équipement yi moom soppi nañ ko ba noppi lii yépp nag ci acte 3 de la décentralisation la bokk. Abdourahmane ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu euh, mbay bi ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ci yëngu li ñu xam le moom moo di seen ak xel dal na bu baax baax ci nawetuk ren wi ndax itam bàq wi tooy na jamono yi nag lépp lu ñeel wàllu jeqli ñu ngi ko rek àpp ci euh, weer bu octobre li nga xam ne moom lañu ñu dëkkmal ginnaaw yenn ci ay tool yoo xamante ni euh, dem nañu fa ngir daal di koy seetlu fu ci mel ni Thiès Tivaouane ak itam Touba Toul moom professeur Moussa Baldé li mu xam le moom moo di mbégte képp dong la ci am Cheikh Anta Latir jëwriñ nga xamante ne moom mooy yor wàllu mbay mi di dikkoon nag doon xool tool yi nekk ci diggante Tiwaawan jaar Tuubaatul ba Chérif Lo professeur Balde nee na li mu gis dal na xel ne nag meññeef gi rafet na lool te fii ak weer yaakaar nañ ne daañu mën a déqi gerte gi góob dugub wala ñu mboolu waaw fi ñu jot a dem moom gàncax bi macha allah rafet na borom tool yi nee nañu fii ba weer daal war nañu mën a euh, góob euh, te gëm nañ ne bu ñu amaatee amee ndox fii ba weeru septembre bi bu muy deewee wala début octobre euh, dinañu am récolte yoo xam ne ak rendement yu baax macha allah. ren jii de ñu jël ay tracteurs jagleel ko producteurs yi ci diggante Thiès ak Tivaouane waaye nee nañ machines yi de baax na ci yi dina gën a yokk liñ daan am. ñaari at am nañu ñaari fukki tracteur nee nañu mosuñu xalaat loolu réception nañu seen fukki ak ñaari tracteur wax naa leen ne am nañu yeneen programme yi ñëw pour que ñu moderniser définitivement suñu mbéy mi euh, ci région Thiès ak ci Sénégal yi. kenn ci ñoom di ab producteur di yëngu ci wàllu mbayam ñam bi dëkk tey Taïba Ndiaye moom nee na lii de yokkute la ci béykat yi. récolter le manioc à temps. tracteurs yi de dina tax euh, ñu mën di jëmbat pulox ju bari machines yi ñu ci dimbali. mën nañoo euh, jëmbat ñam bi ci fukki hectare ci benn waxtu. c'est vraiment nous sommes très contents. ñu gis ne ci diggante Tivaouane ak Thiès béykat yi ak producteurs yu mag nee nañu am nañu yaakaar ci li ñu fas yéene góob ak déqi dina ñoŋ bu baax ren ji te am nañ ci yaakaar yàlla bu yaakaar taas Cheikh ñu sant la gërëm la bu baax a baax ginnaaw Tivaouane Thiès diggante boobu ñu wutali feneen uh, di commune uh, bu Ndiéndiène foofee nag uh, ñi nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo te yëngu ci wàllu dem ak dikk mer ba futt la ñu def tax na ñu wàcc ci li nga xam ne nag moom moo di mbedd ya ndax xal wi nga xam ne mu ne su fa jaar askan waa di lu miti ci la jamono lu ñeel wàllu accident yi tàng bari na la ñu bëgg moom moo di gouvernement bu Sénégal daal di leen di gëstu ñu dem ca diwaan bu Kaolack fekk fa ay ndaw Pape Mbaye Diaw Faly Gueye ci reportage. regroupement chauffeur yu Njeejeg nag ñoom danoo gaare woon oto yi ak taxi clando yi nga xamante ni dañuy jógee ca dëkk booba di dem fële nga xamante ni moo jógee Njeejeg jëm Lambarane président regroupement des chauffeurs bi dina xamal jafe-jafe yi nga xamante ni ñoom la nekkee ci yoon bi. Macky Sall nañu dimbal suñu yoon wi ndax ba juddoo ba léegi si yoon jaar yoon wi baaxut ci lañ judd màgg si su baaxut dëkk yëpp ay baykat lañ seen mbayee fi dara amut benn njëriñ ndax amu yoon wu ñu jaar fu bu yaar ji tawee benn oto dem ngeejeen dem Kaolack bu tri jotee client dañu am problème ci diggante ngeejeen làmbaram ak yoon wi noonu nga xamante nii noonu la mel nag accident yi bari nañ fi lool te nit ñu bëri dañ ciy ñàkk seen i bakkan. am na juróomi nit ñu ñàkk ay bakkan si yoon bi diggante fii ak Lamaram fii taxaw nii pont baa ngi nii ëpp na loolu ëpp na seen raw chaque jour suñu oto yi bu ñu ñëw baax oto boobu jël ñaari at du ko mat oto yi pan nañu nit ñi kenn wératut fi toll nii moom fu ñu mënee muñ muñ ne muñ kaay yem. ñi nga xamante nii dañoo feebar nag ñu war leen a évacuer fa la nga xamante nii moo di ca Kaolack ay jafe-jafe yu metti la ñuy am ndax ambulance bi nga xamante nii moo leen war di yóbbu yoon bi tax na ba mënatul baax ndax euh, yaa ngi amee métit jaar ci yoon bu mel nii oto bi di dal dugg ci pax des fois day taw du ma xam yoo pax yi fu mu nekk damay dal des fois léeg sax lal bi day dem ba décoration wu mhm. malade bi bëgg a daanu ambulance bi ñu am 2015 la fi ñëw 2021 ambulance bi gaare na yàlla def na amaat neen beneen marche boobu nga xamante ni regroupement des chauffeurs de Ndiaye Dieng amalan nañ ko bi nu paree daal di jébbal sous préfet bi benn mémorandum te ñoom ñu ngi xamle rek ne seen yoon bi buñ ko taliwul élection yii di ñëw ñoom dañ koy booy boycotté. mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu uh, caada waxoon naa leen ko bi ñu door yi la jotaayu xibaar dañuy taxaw ci li nga xam ne nag uh, moom moo di uh, piano instrument bile nga xam ne nag ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi ciy yëngu seen xam-xam màcc ci ñu ay ndaw dem nañ fa nga xam ne moom moo di ca HLM 5 daje ak ki nga xam ne moom moo di Souleymane Mbengue ak itam Abdoulaye jaax ñu wax ñu ci lu leer ak loole lan la wundu Ibou Diouf jaafara Ba ci reportage. Souleymane Mbengue ak Abdoulaye Diakh. di at mag ak rak ñu taamu bile métier wàllu piano ñu am ci xam-xam def ko tamit seen yëngu-yëngu. acteur de piano lañ koy waxee ci français accordeur de piano. voilà accordeur de piano musicien yi dinañ ko xam bon ñuy téye mos a téye instrument xam nañ ne instrument dañ koy accordé avant ñu siy jouer quoi piano nag lu tax mu spécifique sur un par exemple exemple bi ma la jox ci français moom mooy. Euh, seen xarañte ci wàllu piano ñu ne la fës la. taxul nag ñu mën a doon ay instrumentiste maanaam ñu mën a jouer piano. xam nga deux métiers lu ñu naan ñaari métiers yu bokkul la xam nga euh, technicien de piano ak euh, musicien du benn quoi un pianiste waaw léegi ñun daal yàlla dafa def fii lañu sedd xam ma ñu ngi siy bay seen waar di di si góorgóorlu waaw dañu siy liggéey nag A ba moom amul lu ñu jaaxal si piano. ak xarala yu yees yi nag ñu ne am na lu bëri lu soppeeku ci seen bile métier. maanaam jumtuwaay yi ñuy jëfandikoo waaye ñoom am na lu ñu gëm ba léegi. am na si piano am na am na ay appareils yoo xam ne mu nga ko utiliser accordé piano mais bon ñun lu ñu mës gëm moom mooy nopp lu mu mën appareil du ko dab ko waaw. bon xam nga métier soo si nekkee su yàggee da nga koy bëgg parce que xam euh, non seulement si ngay si ngay dund mais tamit euh, da euh, passion lay doon quoi waaw. Souleymane ak Abdoulaye lii la ñu def métier maanaam defar piano ñu ràññee leen ci bu baax a baax ci lépp lu laale musique fii ci réew mi bu weesoo lañ ci suturlu Ibou Diouf ginnaaw wàllu caada ñu àddu ci leneen mu ñeel wàllu tàggat yaram afro basket eh, ci ñi nga xam ne nag eh, ñoom ñoo di gaynde yu jigéen ñi xam ngeen lu ni mel eh, ca Cameroun lay amee ñoom ak bi nag jamono yi li ñu bëgg moom moo di bépp raw gàddu woo xamante ni nag teg nañ ko ñu daal di koy indi fii ci réew bu Sénégal ginnaaw am jano boo xamante ni Oumou Khayri Sarr amal na ko ak Mor Bassi ña ki nga xam ne moom la ñu yebal le ñu seetoon nga xam ne nag moom la sekoon ak moom ci waxtaan. tey bi alhamdulilah yegg yegg si nañ si jàmm je crois que liñ doon liñ doon liggéey bi ñu doon def yëpp def nañ ko def nañ ko Sénégal et wala léegi pare nañu pour pour affronter parce que bi beneen beneen beneen phase la pare nañu concentré nañu pour mun a commencer phase bu baax deux matchs yi ñuy joué Sénégal permettre nañu ñu ñu ñu defaraat suñu suñu taxawaay dindi dindi lu diis lu ñu lu ñu yenn woon parce que boo entraîné un mois deux mois ba ba deux mois et demi de préparation da ngay soxla match vu que ñaari match yu ñu yu ñu joué nous a permis defaraat équipe bi bu baax xoolaat lacune yi baax ñu jël yi baaxul ñu defaraat. waa Guinée liñ ci xam nañ ci quelques quelques quelques joueurs parce que je crois que ça fait presque ñaari Afrobasket ñu ngi nii Guinée Guinée ñëwul mais man personnellement xam naa ci benn benn joueuse ñu si des aussi xam nañ ci. xam nañ ci ku ci nekk quelques jours y'a bébé aussi à à côté xam nañ leen xam nañ leen à tuuti mais li ñuy aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen muy li nga xam ne moom la yéenekaay yi xëye ni ki cay yi ñu ànd ci ak moom Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf honorable député Mamadou Sall ak honorable député Boubacar Biaye yi xew ci réew mi jamono ji ba mel ni jinjeer ci xew journal l'Observateur xëy na leen ci xëtamu njëkk ubbil yéenekaay bi seen cooc ak seen cosaan ba ci seen coow lii lépp mu ngi ci yéenekaay bi journal bi xëy topp seeni tànk ngir gën ñoo xamale ak ñoom ñoom ñaari député yooyee coowal trafic passeport diplomatique li ñu leen di tudd Les Échos nee nañu am na keneen ku ñu naan NS moom it Sawadik division investigation criminelle déglu nañu ko démb ci lu yaatu nee na El Hadji Diadji Condé ak Dansokho dañu ko njublang tiriyaane ko ci mbir yi bërki démb la demoon porter plainte Diadji Condé ak Sadio Dansokho président conseil départemental bu Saraya nee na dafa bëggoon dem Belgique Diadji Condé laaj ko 2 mu joxe ko ñu def ko ci ay këyit agent conseil départemental bu Saraya defal ko ab contrat durée indéterminée ba Condé yóbboo dossier ba ambassade bu Belgique di demander visa wa ambassade ba dañu rejeté demande ba ndax dañu cee gis yu bari yu dalul seenum quatre-vingt-dix mille di ko dawlo ñu daw dem ci journal l'info mi xëy di ñu wax ne kilifa ak simon yi ca kaso ba seeni mbokk di waa mouvement Y en jóg nañu démb ci lañ doon amal ab conférence de presse fa la ñu ñaawloo ni justice bi doxalee ci mbirum simon ak kilifa nee nañu nim ci doxale mënees na ko tuddee nu nekk ba mu des justice nguur gi moo jëlati justice réew mi def ko nga nay téye ko di ko xeexe ngir néewal doole ak di ak di leen gën a xundu ci wax ji nag moo di dossier bi ni ñu ci tuddee Simo ak Kilifeu noo ñe lañ ci tuddee ñaari député ñu jàpp Simo ak Kilifeu tëj ràpp ci kaso bi bàyyi ñaari député yi ñuy tambang-tambangi ci réew mi di doxi seeni muraada Vox Populi nañu waa mouvement Y en a marre ñoo ngi ñaawlu ak di jéebaane li ñu tuddee simulacre de justice la Sénégal nañu fi mu nekk nii kay dafa mel ne jàmm day bëgg a jeex ndax gaañi sulliwaat nañu sémmiñal defanteli nee nañu duñu toog di seetaan yoon di sànk seen ñaari membar yi ci lu tegewul ci yoon Le di ñu xamal ne ñoom waa mouvement Y en a marre xamle nañu gis ci mbedd yi ñaawlu ko jéebaane ko ñaxtu ko xultu ko ba ñëpp dégg ko Walf Quotidien tegal ñu ci ci xëtamu njëkk ne seen xeex bi ñoom waa mouvement Y en a marre naru ñu ci wéet am na ñu fara ci langoog politique gi ci réew mi booloo nañu doon benn dànk taxaw ci ginnaaw mouvement Y en a marre ngir xeex leen xeex bi li koy firndeel Walf Quotidien nañu moo di démb ba ñuy conférence de presse seen nañu ca ndaje ma ku ci mel ne Ousmane Sonko Guy Marius Sagna ak yoroon ñetti weeri kaso mi ngi koy yot démb la ñu doon àtte mbir mi ci tribunal correctionnel bu Ndakaaru ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar ci la ñuy xam ana lu ca yoon dogal lise ko nañu waajuri Xadijatu Jeng di xale bi faatu ñoo ngi sàkku ci kilifa yu club olympique ñu fay leen ndàmpaay lu toll ci téeméeri million suur suwa xëye moom sa meneen mbir mu yéeme mu fi xewoon fan yi mu di lakk ga woon ca résidence Palmarin ga ca Saly journal bi mi ngi ñuy nittali lakk ga ak na mu demee ba xamal ñu it ba dugg ci néeg bi néew madame Tavares rek la ñu fa fekk ci anamu miti ta doy waar jëkkër jëkkër ak seen doom ju ndaw ji ca biti la ñu fekk seenub néew li ko indi moo di bi lakk gi demee bay bëgg a jéggi dayo ci biir néeg bi jëkkër ji dafa fopp xale bi ànd ak moom tëb ci balcon bi ngir bëggoon koo sowe yàlla def ñoom ñaar ñépp farfaatu jërëjëf euh, Mohamed mbokk yi jaajëfal nañu leen fi la ñuy jaar yëkkati euh, jotaay wi dig daje ak euh, rédaction bu télévision Futur Média 19h30 20h lay doon daañ fi teewaat jukki leen yeneen i xibaar ci kàllaamay kocc ak itam ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam des leen di wéy ak programme TFM ñu leen di ñaanal juma mubarak jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.